billahi min alsheytaani irrajim wa inni u'iizuha bika wa durriyataha min alsheytaani irrajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu guñ ciy def di nuyu ak di ziyaare sëriñ bi di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ba mu àggale mboolem naalam yi tañ ànd koog moom mbokki jullit yi njëlbéen ak waxtaan bi mu ngi jëm ci xutba al imam xafizahu llahu wa raahu wa ataala umra njël benn gi mi ngi ci andi bayitu sëriñ bi bi wax ci al ashurul xurum muy busra lana qad ataana al juud wal karamu lama stahallat alayna al ashurul xurumu xusna mataaban maa al gufraani fi rajabin wa nartaji fi lbawaaqi rawda man xurimu sëriñ bi bi ñuy tertu weeru rajab la wax ne mbégte ñeel nañu ndaxte ak tabe dikkal nañu ak teraanga ju jóge ci borom bi tabaraka wa taala bi weer yu tedd yi dugg see mu ñeenti weer yoo xamante ni sunu borom daf ko jox wàccuwaay muy weeru digg ak weeru tabaskeek weeru tamxarit ak weer wii nekk di ndeyu koor ngi zul qiada dul xijja ak muharram ak rajab di weer woo xamante ni nag imaam nee na mi ngi ci dénk dénkaane di ci dénk ñëpp ragal yàlla ak di moytandikuloo ñépp ay ñaawteef ak i bàkkaar ndax nee na mooy ko ay ñaawteef ak i bàkkaar mooy taxa am ay yiw akum jub mi ci soññee bu baax itam ci bari lu ñuy woor ci weeru koor weeru ndeyu koor wii ñu bari luñ ci woor te di ko def ngir jëm yàlla bari itam luñ ciy naafila rawat na bu xaaji guddi jotee ba nit ñu sàggan ñëpp wuti seeni lal nañ ne fojjat nag jubli ci borom bi tabaraka wa taala fas yéene naafila ngir jaamu ko yàlla kon nag nee na mi ngi ndokkeel képp koo xamante ni yàlla baax na la nga farlu ci weer wu mel nii ngaaye nga farlu ci lan cig jaamu yàlla mu andi ci aayab alquran bi ci suratul xadid laaye fukk ak juróom alam yani lilladina amanu an taxsaa qulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alxaq yéen ñi gëm yàlla xanaa ragal yàlla jot na ci yéen xanaa seen xol yi war naa fàttaliku yàlla ak alquran ju dëggu ji mu wàcce loola nag ku ko dégg war xam ne ab soññee la waaye yaddaanga la ci koo xam ne te farlu ci jaamu yàlla rawatina nga gëm yàlla kon nag mu ne nañ àndal ñun ñëpp ragal yàlla te gën a sàmm waxtuy julli julli ak waxtu julli yi tey jëf-jëf ju yiw ndax fa inna xayra amalikum salaa jëf yi yooyu nag bokk na ya gën nag nee julli nga koy def ci ay waxtoom mu teg ca la yonente bi alei salaatu wasalaam waxoon na wa inni axsa alayya wa alaykum an takunu mimman qaala fihim maqaalan yattaciru bihi man kaana qalbuhu xayya li may ragalal sama bopp yonent bi mooy wax li may ragalal sama bopp laa leen di ragalal yéen sama xeet te mooy ñu bañ a bokk ca ñu yàlla waxoon ci ñoom wax joo xam ne waar na ku ab xolam di dund muy fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahawaati fa sawfa yalqawna gayya ca suuratu Maryam laaye juróom fukk ak juróom-ñeent mu ne am na nit ñoo xamante ni ñi leen jiitu woon di seeni baay ak seeni maam nit ñu yiwe lañu woon baax daan sàmmoonteeg ndigalu yàlla yi di topp ndigal yi di bàyyi tere ya di taxawal julli itam waaye bañ demee nag ñu ñëw seen ginnaaw toppuñ jéego yi seen maam ya toppoon ci baax ci wax ko ak jëf ko waaye dañ caa sax di sànk julli yi duñ julli ca waxtu wala bañ koo def sax far yemuñ ca waaye itam ñuy topp seeni bànneex nee na ñooñee kat fa sawfa yalqawna ghayya ëllëg seen kër mooy sawara wala yaasu billah loolu nag kon ku ko dégg da xam ne safaanab kuy sànk julli mooy safaanam mooy kuy wattu julli di ko bàyyi xel kon lañ ca war a dégg mooy war nañoo gën a fonk julli rawatina di ko def ci waxtum waaye war nañuy moytandiku itam topp ay bànneex yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fonkoon julli taxoon mu ne asalaatu imaadu diin mooy kenool diine kenoon nag bu jógee ci am mbaar day rës moo tax mu ne fa man aqaamaha faqad aqaama diin ku taxawal julli te sàmmoonteeg sart yaag nañ ko digle taxawal nga diine waaye wa man tarakaha faqad hadama diin ku bàyyi julli te amoo ngànt itam màbbu nga diine kon loolu lépp nag dañ ko doon jukkee muy ab tënk bu jóge ci xutba al imaam xafisahullah waraahu julli moomu nag di lu am solo ndax borom bi tabaraka wa taala daf ñoo digal ñu war koo sàmm sàmm nag loo koy def mooy danga koy bàyyi xel di fuglu waxtu wa ngir mën a matal mbooleem waajtaay ya ca sart ya waaye bala nga caa jublu itam nga xam nuñ koy defee mbokki jullit yi ak jaamu yàlla kenn du ko tëñëxu def koy jàngi ba xam nañ koy defee foo koy jànge ci téere borom xam-xam yi lañ wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom la daan jullee ba noppi ne sallu kama raaytumuni usalli julli dañ ko diisu ko tëña ko dangay dem ba jàng ba xam nañ koy defe nga defe ko noona soo ko defee noona ba noppi itam nga dëppale ko sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi def ko ngir jëm yàlla yii de mu ñett yi ku ko bàyyi xel am yaakaar ci ne borom bi dana nangu sag jaamu yàlla mooy nga def ko te teg ko ci xam-xam bañ koo tëñaxu def ko itam bañ a ber saw yoon waaye na ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon defee nga roy ca sunnaam waaye itam nga génn ci luy mbindee fii te def ko ngir jëm yàlla jaamu yàlla goo gis ku ca bàyyi xel ñett yooyu am yaakaar ci ne suñu waram dana ko nangu yàlla nañu yàlla boole nangul suñuy jaamu yàlla muy julli nag nga xam ne dañ koo war di bàyyi xel ci waxtu yu ne ndax julli di tax mu am solo moo tax daanaka lislaam du ko wàcce jullit bi li feeg mi ngi ta ak ruuxam bu nekkee ci ab tukki wala mu ñàkk caa nekk julli la koy war su nekkee ci waxtu mi jàmmaarloog noonu ya ci jiyaat ci yoon yàlla day julli su nekkee ci waxtu woo xam ne xeexut tam day julli su nekkee ci waxtu woo xam ne yàlla may na ko wér-gu-yaram itam julli du ko wàcc su ko joxee ak tawatitam muy wopp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 ci ne mooy julli fajar wala jullik suba lu ci mën doon ak julli la rek nee na nañ koy bàyyi xel tey taxaw di jaamu yàlla xam na ne julli ak waxtoog lum mu mën di fekk ak num la mën di fekkee tam danga ko war a def fa in xiftum fa rijalan aw rukbaana bu ngeen nekkee ci ay xat-xat sax di dox ak seen tànk ca biir xeex ba rawatina seen digganteeg noon ya na ngeen di julli na ngeen nangeen ko mane su ngeen waree itam mu ngeen julli nañ ko moo xam nu mu ci mën doon rek jublu ngeen xibla wala ngeen ñàkk jublu xibla na ngeen julli na ngeen ko mane ndax julli du leen wàcc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

la السلام bismillahi irrahmaani irrahim kon julli noonu la amee solo noonu lañ ko war di bàyyee xel itam te war nañoo xamee itam ne julli ni lislaam yàggee ci kaw suuf ni la julli yàggee ci kaw suuf ndax lislaam mooy diine ji nga xamante ni diine ju yàlla ma sa wàcc ci yonent bu mu gërëm loo te soppiwuñ ca dara loola mooy lislaam ba rogalaat ba yegg si ci yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax nag julli gi am ci biir lislaam julli noonu la yàggee itam ci diiney lislaam ji yonent yépp lañ daan julli borom bi tabaraka wa taala moo tax sunu borom sunu borom tabaraka di ñu xamal ne yonente yépp lañ daan julli wax ko ci suratul anbiya laaya juróom-ñaar fukk ak ñett wa awxayna ilayhim fiala alxayraati wa iqaama alsalaati wa itaa alzakaati wa kaanu lana aabidin ba mu tuddee lenn ca yónnante yi dane ñooñee day la ma leen digaloon mooy ñuy jëf-jëf yu yiw yi jëf yu baax yi yépp nag waaye mu tuddaat ci biir jëf yu baax yooyee nag yenn jëf ngir yitte ju ko jox te mooy taxawal julli wa iqaama sala ak natt azaka mu ne bañ wàccut yoon wee wooyee nag moo tax nag ñoom xam nañ la tax yàlla wàcce woon leen ci kaw kaw suuf te mooy ñu jaamu ko wakaanu kaanu lana abidin kon mboolem yonente yi dañ daan julli loolu doy na julli wàcc wàccuwaay te julli itam ku ko def ca na nga ko war a defee ci nuñ ko njëkkoon a bañ koo tëñëxu jàng ba xam nañ koy defee dëppale kook sunna su yonent bi te def ko ngir jëm yàlla te sax ca loolu day dox sa diggante ak i ñaawteef moo xam muy ay wax wala muy ay jëf inna salaata tanha anil fahshaai wal munkari ca suratul ankabut laaye ñeent fukk ak juróom julli itam yëmut ci loolu waaye day far ay bàkkaar ak i ñaawteef ndax Abu Hurayra nett nañu ne déggoon na yonent bi aleyhi salaatu wa mu waxoon ne waaw bu fekkonte ni kenn ci yéen dafa am ak dex ku nekk ci buntu këram walla buntu néegam ak dex su amoon ci sa buntu kër bët bu set nga wàcc ca dex googee sangu ca juróomi yoon mu ne ndax sab tilim dara dana ca des saxaaba yee ne ko déedéet nit kay bu dee sangu juróomi yoon ci bis bu nekk deefur séentu ci moom ab tilim yonente bi ne neen fa dalika masalu salawaati alxams yamxu llahu bihinna alxataaya loolu dama leen doon jox misaal ci julli yi juróom ni ñuy fare ay ñaawteef mi ngi mel na dex googu ngay xëy bët bu set nga wàcc ca sangu ba set te def ko juróom yoon boo dee julli julli juróom yoon julli juróom yooyu te di ko sellal itam noonu nga lala sunu borom di musale ci ay ñaawteef ak i bàkkaar loolu itam doyoon na julli wàccuwaay moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu xam ne lu baax rek lu ñu bëggal fonkoon julli lool loolu sax waxit la ndax ni mu fonke woon julli moom daanaka ñëpp a ko xam moo taxoon mu ne woon jullee gi noonu yéene gi noonu waaye képp koo xamante ni julli jot na waxtu wa jot nga dagg yittey àdduna yépp ngir julli ga dem julli ji nee na sunu borom dana la jëriñ ca julli googee nga bàyyi yittey àdduna ngir moom waaye dana la jëriñ ca yittey àdduna ya nga bàyyi na ngir julli ga man saxalathu salaatu an il asyaai intafaa biha wa bil asyaai yi tey àddina lu mel ne am commerce ñu nodd nga tëj sa bitig dem julli ci sa mbaaram minise fa ngay ñawee fa ngay tabaxee fa ngay tëggee fa ngay bayee sab tool nga bàyyi garam place ak waxtaan yu neex ya ngir ne nodd nañ nga wàcc sa oto yow mii safoor bi ak lu nekk ci tukki bu sori nga wàcc xam ne waxtu julli jot na nga dem julli ji nga nekk ci aw xew lu mu neex neex nga dagg ko dem julli ji sëriñ tubaa nee na radiyallahu sunu borom dana la jëriñ ca yëf yooyee nga bàyyi mu yittey àdduna ngir julli sunu borom dana la ca jariñ ni mu lay jariñe ci julli gi waaye mu ne safaan ba nag mëtta def wa man saxalathu l asyaau an salaati laa yantafiu biha wala bil asyaai koo xamante nag waxtu julli dafa jot yittey àdduna dox digganteem ak julli nee na sunu borom du la jëriñ ca julli ga de waaye du la jëriñ ca yittey àdduna yooyu nga xamante ni moo la fàbbi ba nga bàyyi julli moo tax sëriñ bi xamoon loolu nag daañu xamal ne yaakaar day ànd ak jëf-jëf ju baax rajaa u duxulil jannati yati baada taakkudil asbaabi ay baada alqiyaami bil ibadat nit ki day def lañ ko digal ba noppi di yaakaar lañ koy dig ci lu baax rawatina muy tàbbi aljanna waaye nag dama bëgg sunu borom tàbbal ma aljanna te lam la digal de nanguwoo caa def lenn loolu sax ñàkke ay teggin la sa digganteeg sa borom moo tax sunu borom tabaaraka wa taala ñuy junj ci alquran ne bala ngay yaakaar yërmande yàlla da ngay jaar fam la jaarloo wax na ko ci suratul baqara laay ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñett ne inna alladina amanu walladina haajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuuna rahmatallah mu ne ñu gëm yàlla nangoo gàddaay ngir yàlla nangoo jihaat ci yoonu yàlla ñooñee day am nañ sañ-sañu nag yaakaar yërmande yàlla mooy ndax dañoo tënku ca ndigal ya di bàyyi tere ya kon war na ñoo mën a yaakaar yërmande yàlla moo tax sëriñ bi xamoon loolu nag waxoon nañu bu yàgg ne rajaau jannatin bila taati yowma alqiyaamati gururun baadi toog rek na yàcc na yasar nanguwoo jaamu yàlla ba noppi yaakaar àjjana yi ëllëg sëriñ tubaa na waru mënu koo féete kaw ëllëg bis loolu nag ku ko dégg ci sëriñ bi da nga xamante nii nag wax ju réy la lañuy teg tegtale nag mooy kon jóg jot na ndax nee na moom foofa la jaar dafa dee yaalanteeg borom bi ay ati at naajeytu rabbiya sinin ay ati at sëriñ bi nee na moom la dee yaalanteeg borom di ko jaamu kon sonn na feneen fa mu ne naa jeytuwoo jàlla ah waa man dee yaalante naag borom bi ay ati at waxul lim ba ndax bariwaay ba fay ga doog di ñëw mooy wa karrama nii mu doog may teral wax na itam nag li ma daj ba am ngërëmul yàlla lu sax lii yombut diis na tiis na itam na bëxtukum nee na lii dañ ci yee ngir ku ko xamutoon war koo xam nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an araridan mu abada maa ngi leen di xamal ne la ma daj bi ma daata am ngërëmal borom bi tabaraka wa taala metti na tiis na moo tax yonent bi alei salatu wasalaam waxoon ne al axmaqu man atbaa nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi aljanna nee na ku yeewoo di digg dëgg-dëgg ku yeewoo di dëgg-dëgg mooy ka topp bànneexu bakkanam ba noppi di yaakaara dugg aljanna ëllëg loolu kon lu ma bàyyi xel la moo tax nag ña toon toogoon ak imaam alxasan al basri nekkoon imaam fuñ jëm ndax dañuy toog ay nit ñi ñuy waar ba suñu xol yi bëgg a naaw ngir tiitaange mu ne leen nga toog ak koo xamante ni daf lay waar ba nga tiit ba nangoo jëf-jëf ju baax moo gën nga toog ak koo xam ne daf la koy yombal ba musiba fekk la fa yàlla nañ ci yàlla musal kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu boole ci ñi nga xam ne dañuy wattu waxtu yu julli yi te di ko def nam ko bëggee dëppale ko sunna si yonente bi te di ko def ngir jëmmam te mu nangul ñu booleem jaamu yi ñuy def te jéggal ñu sunuy mboole ñaaw téef di ñaan yàlla mu yàggal fi sëriñ bi tamay ko wér ba mu àggale mboolem naaram ñu te ñu ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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

رسول الله الحمد لله الذي وفق أهل طاعته لأسباب رضاه واستعمل جوارحهم وبواطنهم فيما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه الحافظين ما أمرهم به من العزائم أما بعد فيا عباد الله في بعض الأحاديث أن في الجنة نهرا يسمى رجبا باسم شهركم هذا ماء أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر فاتقوا الله عباد الله وأكثروا في شهركم هذا من الصدقة والصيام وتزودوا فيه من نوافل الخيرات والصلاة بالليل والناس نيام وانتهزوا فرصة العمر فكأنكم بفصيحته قد ضاق وبساطه قد انطوى وطهروا مقاصدكم على الإطلاق واعتكفوا فيه على صيام النهار وقيام الليل وشمروا لذلك عن ساق الجد الذيل فإنها أنفع ما يجره المرء في الآجلة وخصوصا في الأزمنة الفاضلة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين الحمد لله الذي عظم فضله وعم منه النوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع ما له من الآل والأ... من الأصحاب والآل أما بعد فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب فاتقوا الله عباد الله wasra'u li anfusikum ma tahsudun wa qaddimu min al-amali as-salihi ma tajidun yawma yandamu al-muqassiru ala ma yadi'u min umrihi wa yafut وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت واحذروا أن تمر بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها فإن شهركم هذا أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو ويعظم وكما يضاعف فيه جزاء الحسنات كذلك يضاعف في يضاعف جزاء السيئات وأفضل الرغائب على الإطلاق هو كثرة الصلاة والتسليم على من صلى عليه الملك الخلاق جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا آنس نورا اقتبس منه ما تيسر يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 assalaamu aleykum assalaamu